mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey jii ñu fas yéene ànd ci xew-xew bu mag di bésub ñaan ak euh, jàngum alxuraan ñu di ko amal at mu jot fii ci Ndogol Dieng Ndogol Dieng nag di ab dëkk cosaan dëkk bu léppam alxuraan dëkk bi mi ngi nekk ci diwaanu cees departement bu Tivaouane ci commune bu Meouane ni ñu ko baaxoo ni ma leen ko junjee léegi at mu jot fii ñu di fi amal bëccëgum ñaan waaye itam njàngum alxuraan fii ci Ndogol Dieng ma leen di fàttali ni dëkk la bu séen lépp dañu ko jël jox ko alxuraan firnde lii di tey boo dikkee fii ci Ndogal jën di nga fi fekk daara ju méngoo ak jamono di nga fi fekk jumaa ju mag ak genn kër goo xam ne dañu ko jagleel Serigne Touba Cheikhul muy kër Serigne Touba gi nekk fii ci Ndogal jën barab yi ma leen limal yépp nag fàttali leen ne ki ko fi def mooy jëmm ji di Serigne Mbacke Dieng doomi dëkk bi. bëgg lool Ndogal Dieng iteem yépp mooy lu suqali Ndogal Dieng jumaa jiit ñu ko dalloo fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2015 mu doon ay jumtuwaay yu ni ma leen ko waxe woon sànq Serigne Mbacke Dieng moo ko fi taxawal ci doole bopp bari na ñoo xamante ne bi demee nañ ni moom mais xalaat bi amuñu ko sax bay am jëf ji kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla gën koo jàppale ba lépp loo xamante ne bi bëgg na koo liggéeyal sëriñ bi yàlla gën ko cee dimbule fii nag barabu sëriñ bi ci li nga wax ndax boo seetee ki fi tëdd muy seen maam eh, jaar-jaaru sëriñ bi la sëriñ Tuubaa nag moo doon koo xam ne eh, amul tànki gannaaw tànki kanam la am lépp lu aju woon ci moom wala nga laaloon ci moom rek fokk yàlla dana ko gën a sooxat gën ko dundal moo waral mu def kër gu mel nii li ci gën a am solo nag kër gi naam am na solo waaye man bi ma dikkee fii daaw dugg ci internat bi gis ay doomam ñuy jàngale alxuraan ay doomam yu góor ay doomam yu jigéen naw gi ma ko nawoon ci jëf ji coo ci laa ko gën a naw ndax bu ñëpp meloon ni moom rek euh, sëriñ bi siggi ndax sëñ Tuubaa li ñu ko mën a jàppale mooy fexe boobu bu ko kenn yàpp ci sa jëmm te comportement bi mu comporté wu moom kenn mënu ko yàpp ci jëmmi sëriñ Tuubaa kër moom mën nga koo liggéey mu taaru mu rafet nga keneen koo xam ne kii gëmul sëñ bi gëmul yàlla sax dàqale la ko waaye nag alxuraan ji mu dugal ci biir ak néegu yàlla bi mu fi tabax loolu moom naw nañ ko ci loolu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ba lépp loo xamante ne bi xalaat na ko ci jëfam yàlla man loo ko lu raw loolu waaw te yàlla yi kese it nag moo nu fi andi waaw dara ñu andiwunu fi loolu yàlla yi kese ndax lépp lu ñu yëkkatil sëriñ bi rek ñun fas nañ du bokk ca biir ca loolu de mbégte mi day ñëw ci ñaari anam benn bi mooy dox ci kaw ndigal li ñuy fi indi te bu set ñuy bég ci ndigal bu baax a baax lu jóge suñ kilifa mu yebal ñu di Cheikh Mahamadul Bachir moom Cheikh Moustapha Fadilou mu séq koog waa kër gi itam séq koog waa dëkk bi séq koog njaboot gi xam seen taxawaay ak seen pësteef ak seenu fonk alxuraanul karim loolu itam bu ñu ci sëriñ bi yónnee ñi ñëw fekk suñu mel nii fekk fi waa kër sëriñ Touba ak liñ fi def lépp ngir jëm sëriñ Touba ak alxuraan buñ ci ñëw mbégte la ñuy àndal eh, mooy li ñu fiy taxawal itam di alxuraan kon mbégte mi day nekk ñaar benn bi mooy dox gi ñuy dox ci kaw ndigal bi ci topp mooy liñ ñu digal ñu jëm si foo xam ne lépp rek alxuraanul karim la kon loolu ñu ngi ciy bégg bu baax di leen jot lii itam sëriñ bi ak i ñaanam akub ziaram ndax euh, lu mel nii rek la Sëñ Tuubaa bëggoon muy alxuraanul karim amul lenn luñ koy askanale lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg alxuraanul karim di ca dox di ca wax kon nag bu ak njaboot jugee di askanoo Sëñ Tuubaa def lu mel nii di ay taalibe ñëpp dañ leen a war a ñaanal encouragé leen gën leen a jaajaat fonk liggéey bi ndax lii rek mooy liggéey bi nag euh, mission bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi mooy dundal jaamu yàlla ak dundal alxuraan al karim kon nag lii ñuy def ñu ngi leen ñaanal ñu day ca ngërëmul sëñ Tuubaa la ca topp ni ma ko waxoon barki démb rek yu mel nii bu dee am barke rek kay am xéewal rek am te lépp yokk itam ni ko alxuraanul karim wax rek ne wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma an gadaqa dellu wax ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakaat kon nag istiqaama ak attaqwa moo ñu war ñun ñëpp eh, gin maanaam bu ñu ragalee yàlla ba noppi ñu tegu nag ci istiqaama gi ma doon wax barki démb rek bu ñu ko defee suñu léppay baax léppay sotti léppay jag comme ni ko suñu borom waxee rek la asqaynaahum maa an gadaqa te sagal sëriñ bi ci lislaam te sagal ko ci jaamu yàlla xam naa ñi ngi guddal di jégalu bu baax a baax amoon nañu yéene mu gën a gudd lool waaye daal ñi ngi ku di sant sëñ Mbàkke ak njaboot gi yëpp sëriñ Mbàkke leen nuyu ñëpp a ngi lu seen taxawaay ak seen pësteef yàlla ngi tey ngërëmu sëñ Tuubaa mi tax ngeen di ko def lii rek nag mooy yoon wa loolu rek mooy yoon wa buñ ko defee suñ lépp jag àdduna ak àllaaxira in uridu illa al-islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah mi ngi lay sant di la ñaanal moom ñi mu ko seqal ñëpp sama borom guddal fan wi te defal ak wér ne mi ngi koy ñaan te loolu xam nañ bu amee njariñal ñëpp lay doon yal na ko sunu borom def nee na mosul la am lu ko gën a bégloo bégloo lii <clears throat> léegi nag al <clears throat> de kër gaa ngi nii kër Serigne Touba la sa jumaa jaa ngi nii jumaa yi sunu borom ñu defal ko Serigne Touba fii ci ndigal la Serigne Touba lañ ko defee moo ñu joxoon ndigal bàyyi ma naa leen xalaat yi jox ko ci ndigal ñu dem wax ko Serigne Saliou mu joxe ndigal ñu ñëw wax la ko nga defoon ci ñaan ñu def fi ba jumaa ji àgg na daaray alxuraan jaa ngi nii. sa sa sam dongoog ne muy Sidi Dieng bari na ñu fi mokkale alxuraan léegi ci biñ ko tàmbalee léegi ngi ñaan daara jooju gën a barkeel ba fu daara ma sa àgg mu àgg fa ci barkeel Sëriñ Tuubaa naal woowu ak seen boobu nag nee na da ko seen moom te ànd koog bokkam yëpp ak jullit bu nangu am pasteetu fii mu ngi dund di ci sonn di ko def ngir yàlla di ko def ngir jëmm Sëriñ tubaa di ci def seere ak ñi mu ko bëgg a ñëpp. sëriñ sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak cant di ko jëmee ci mboolem njaboot gi yëpp waaye di jaar ci yow nag nee na euh, boo gisee tànkam yii mu ñëw fi lu mu yàgg bëgg la ndax sa yitte ak sa pasteef ak doxin wu rafet bi nga xam ne moom lañ la xamee nga ànd ko njaboot gi yëpp nag nee na loolee yàgg na ko bëgg waaye suñu borom moo koy soog a dogal tey jii ba tax na nee na sawar na lool ci ñëw fi. bi mu fi ñëwee it li mu fi fekk nee na kawe na njortam ci loo xam ne sagub di maanaam lislaam la waaye di sagub yoonu murit ndax lii sëñ Fallou wax léegi firndeel na ko dëkk boo xam ne lañ koy dundale mooy li Sëriñ Tuubaa daan dundale ay dëkkam dëkk bu mas a sanc la mu fay njëkk a def mooy daari alquran ak jàkka yu ñu jaamoo yàlla te loolee moo doonoon sa yitte ji njëkk ba yàlla dimbale la ci nga am ci loo ci jot a sottal li ci des it nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa nga def ko ni nga ko bëggee ànd kook njaboot gi yëpp ba am ci lu kawe sa njort di jaar ci yow di nuyu mboolem ñu fi nekk ñëpp di kilifa dëkk bi leen siyaare di leen jotalit nuyoo ba nga xam ne moom mooy maanaam nuyoo kilifaam gam bàyyi ko tàmbalee ki sëriñ si di moom Cheikh Abdoulahi Ahad jaar ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy buntu bi yoonu murit mu ànd ak ay ñu àndal ñëw fi teew fi kon di loo xam ne ni mu ko waxee rek yàgg na ko mébét lool waaye nag eh, suñu borom a koy soog a tey jii bi fi ñëwee li mu fi gisit nee na kawe na njortam lool kon na xolam sedd na eh, lii sëñ Fallou wax it di ci sàkku ñaan it nee na mi mi mi ngi koy ñaan bu baax te ci am yaakaar ba xeeti xéewal yi ak xeeti teraanga yi nga xam ne suñu borom da koo yor te du jeex mu tibbal leen ci loo xam ne dana leen doy sëkk te doy njaboot gi yëpp doy ñëpp ba li nga yéene ci bëgg koo defal sëñ Tuubaa defal ko say maam ak say waajur fii ci dëkk bi ak njaboot gi yëpp yàlla dimbale la ci ba nga def ci lu kawe sa njort waaw ni ma ko waxee woon gën naa rafet gën naa mat <laughs> waaye mi ngi sant bu baax di di bu baax a baax rek jërëjëf. kon dañuy daal di dem directement ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg comme ni mu ko waxee cosaanal dëkk bi ku ñuy wax sëñ Mor Mandaw Dieng moo ko sanc si wan ngir rawale pas-pasu diineem comme ni ko mag ñi daan defee bu njëkk ci jàngale ak yar. mu ñëw sanc fi daara gor fi ay tool nekk fi ak njabootam di fi jàngale ak di fi yare jamonoy dox ñu nekk ca loola njaboot di ko donnoonte di ko ŋàbb di ko ŋàbb ba mu ëgsi ci ay sëtam ba ñuy wax sëñ Jibril Dieng mu xalaat defa fi néegu bi yàlla fii ci biir dëkk bi ba mu ko xalaatee ànd ko ak njabootam ak njabootam it daal di koy nangul yéene joojo comme na nga xam ne ne la Ismaayila nangu walan juram ba ñëwee ba fondation jumaa ji ba pare njaboot googu moom Serigne Mbakke ak rakkam di njabootu Serigne Jibril Dieng ñu xalaat ni fépp foo xam ne da fa def néegub yàlla kat néegub yàlla war naa ànd ak néegub xam-xam te mooy daara alquran ci lañ xalaat daara jii nga xam ne moom ngeen gis ci la nekk nii ñu defar ko nii di fi jàngal ay xale ak di leen fi yar boole ci it geneen kërug Serigne Touba goo xamante ni bii moo koy taaral gunge ko. boot ko ŋàbb ko ci loolu nag ci lañ nekk di ci dox jamono boobu ba léegi waaye amaa ñu doon def loolu seen njabootu bopp bàyyiwuñ leen won ñu ngi woon continué woon ci tànk yooyu nga xam ne moom la leen mag ñi bàyyee woon muy jàngale xam-xam ak alquran ba kii nga xam ne moo toog tey jii war a jël kàddu war fee def waxtaan de bu Soxaybu ci daara jooju la génne ci la jànge fii ci réew mi ba wattu fi alquran fi la jànge ci réew mi ba jàng fi yenn xeeti xam-xam yi nga xamante ni bii mag yàgg nañ ko fee jàng door a génn fii dem ci bitim réew mottali jafa xam-xam comme ni ko doomi soxna yi demee moo dellusiwaat tey nag war a am benn waxtaan ba mu ciy def ñu jublu ci nag ngir soññe ko ndaw ñi ak soññe ko xale yi nekk ci daara ji ak soññe ko xale yi nga xam ne ñu ngi képp ci famille bi moom ñu jéem a def comme moom ba am lu tol ni lim ci am wala ñu am sax lu ko ëpp loolu mooy sunu yéene bismillahi rahmaani rahim wa salaatan wa salaaman ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu sell boobu nuyoo bi nag ñu ngi koy def ci turu suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi teewal comme na ko suñu wayjur sëriñ Modou Mbaye Diagne waxe jataay bi nag li ko waraloon mooy dañ fee teew ci jataay bi ngir am ab gëstu boo xam ne dañ ko defoon ci ndigalul suñu wayjur nga xam ni moom ci liggéeyal Cheikhul Xadim rek ci lay dox sëriñ Fallou Bousso Tamba moom moo ci war a waxtaan waaye ñun dañ cee defoon ab gëstu boo xam ne ngir gën a yaatal ci ay point lañ ko tënk liñ njëkk a def mooy xamle kan mooy sëriñ tubaa ci liñ ci mën a xam wax fi mu gënee àdduna wax ñan mooy ñan ñooy ay waajuram wax am njàngam fi mu jaar ci am njàng xam-xam nag euh, wala tawxiid nag dafa nekk xam-xam boo xam ne dafa am solo ba tax na xam-xam bu bu bu bari ay tur la xam bu baree bari ay tur la loolu nag li ko waral mooy am gim am solo dañ koy tuddee xilmul xaqida di ko tuddee xilmul tawxiid di ko tuddee xilmul fiqhil akbar loolu it Euh, li muy tegtale rek mooy am gum am solo ilmul fiqhil akbar nag li tax ñu ko koy wax moom ba léegi dañ koy tudde ilmu ilmu usuli diin ba léegi dañ koy tudde mooy xam-xam bi nga xam ne cosaani diine yi ci la bàyyi ko al fiqhul akbar nag buñ ko waxee dafa am al fiqhul asgar al fiqhul akbar mooy lépp lu jëm ci wàllu pas-pas ni ñuy gëmee yàlla ak yonant yi ak malaayka yi ak ak téere yi ak euh, bis bu mujj bi loolu mooy al fiqhu al akbar al fiqhu al fiqhu al nag moom mooy eh, li lay jàngal say jaamu yàlla lu demee ni say julli aj màkka ak eh, azaka nan nga koy génnee loolu la ñuy wax al fiqhul asgar waaye li ñu tax a jóg fii rek mooy leeral eh, solo tawhid solo solo sim am ba tax ba ci loolu am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Ibnul Hajj moom da doon wax ne walam bi anna kasratal asaami dalilatun anna al musamma saami mu ne barik ay tur li muy tegtale mooy la ñuy tudd lu ama am solo la comme buñ joxee misaal mu mu mu mu mu nga xam ne moo gën a jege ñu wax ko mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa ku bari ay tur la as cheikhul qadim ku bari ay tur la yeneen gaa yu baax yi dangay ngay gis ne dañ leen di jox tur yu bari loolu li koy waral mooy ñoom. am guñ am solo ak wàccuwaay bi ñu am moo tax ñu ñu ñu bari eh, ay tur moom tawxiid nag moo nekkoon eh, maanaam message bi nga xam ne moom lay yonent yi doon doon doon jàllale. ci gàttal daal ni ko ni ko ni ko sëñ bi waxee xam naa jataay baa guddu ni ko sëñ bi waxee daal ci gàttal mooy ñu ñu ñu ñu wéetal suñu borom rawatina nag mboolem ñi nga xam ne nag dañuy dañuy dañuy dañoo topp ci. ci ci Serigne Touba. Mm. ñu xam ne bind na ci bind na bàyyi fi yar tayit ci la yaroon mag ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko toppoon. ñoo ko toppoon ci lay wax ne fa kullu ma yaxturu bil baali abat fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad ñu xam ne daal suñu borom lépp loo xalaat rek. ba mu toq sa xel nga di ko nuróole ak suñu borom na nga xam ne melul noonu ñu xam ne daal képp ku dul maanaam képp ku dul suñu borom doo suñu borom ci gàttal képp ku dul moom doo suñu borom. waaw képp kuñ mën ne wax ne daal maanaam diwa ko jur diway baayam diway yaayam moo jur ñoom diw ñu xam ne kooku du suñ borom ñu ngi jégglu ci ci ci jataay bi dafa mel ne euh, xaw nañoo guddal lépp lu jub ci suñ borom la soob lu ci dëng ci man mi ko doon wax ci ci ci ci sama gàtt alliwu la من بعد ما سبب التخير وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم وانا لن نجلن نيوم بسانتي le 11 juillet 2012 kon yaakaar naa daara ji fii may wax ak yow mi ngi ci juróom benni at yu tegu weer rek wala weer ak genn wàll waaye baaxu yàlla ak ndimbalu sëriñ bi fanweeri gone ak juróom mokkale nan alxuraan ci barab bii ci juróom benn yi mu wax loolu nag ñi seen doom bàyyi ko ci daara ñëw seen loxo ñoom duñ ko weddi xam nañ ko ndimbalul yàlla yëmul fenn ndax nga sos mbir ci diir bu toll nii amagul juróom benn at ñu ne ci la toll nga am ci fanweeri gone ak juróom ñu mokkale alxuraan ci barab bi mbokk am ñoo ku leen yéer wax ñun loolu dañuy wax waaye loolu mënta nekk gone yi doon taree alxuraan sax lañ ndax kenn ki daa tare woon daaw mel ni xawoon naa ñagas ñu ne na ko yeesalaat yàlla lu sutura kon juróom ñi ñoom ñoo leen diggu démb démb dañu dañ cee nekk ba asamaan set ñoo leen alxuraan gis naa fañ démb not ya ñoom ñëpp nee nañ seen alxuraan rafet na ci anam bu rafet yàlla def nañ tawfiq sëriñ soxeb toolu bi yàlla ñu nii toolu yàlla nag yaatu nag fu ne nit mën a faa bay ki nit ki mën ngay bay suba ba ngoon da doo dajeeg sa morom kon tool yàlla bi yaatu na ndax moom xam na ni am na fu mu tàmbale te am na fu muy yem te man ak man di ñoo ànd te suñ borom moom jeexul kon bu jul yëpp àndee ni dana daara ji daara ji mën naa dem te kenn ku ne ci yéen bëgg sa doom ñëw ci daara ji yéene ji nga am nag ba soo bëgg sa doom ñëw ci daara ji nañ boole suñu yéene suñu man-man teg ko ci daara ji ngir xale bu ñun mën naa jàngal ngir yàlla bari na fi ñoo xam ni ñëpp mboolem ñi fi bind kaamil kenn ku sa wajur xam lu paquetu kaamil jar amul mboolem ñi fi ñibbi ku xam sa wajur paas ba nga paas ñaata la amul maa la ko jox nga ñibbi ku ci feebar ku nekk mus ñu laa jox sa wajur ma faj la Aliou Diop ca kàbbu yàlla ko suñu boon doon ak wér ma waxoon bàyyi sëñ ko fexeel ma dong yëpp nañu am ay carnet sant ku ñu feebar ma jël ko en charge am na ñoo xam ni. ku mel ni njabootu Mame Bassirou Dieng seen kilifa muy sëñ Aliou Badara Dieng at mu nekk mu béye tool boo xam daara ji ko jagleen mbokk yi lu waay ñàkk-ñàkk de sa sa jëmm te alxuraan day ku ci feeñ dootoo nëbb asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi fi daje yëpp maa ngi jiital sant sama boroom subhaanahu wa di teg ci loolu julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye di yeesalit sama jaayante ak sama cofeel ci Maulana al Abdul Xadim di nuyu nag mboolem kilifa yi fi nekk ñëpp ak bokki jullit yi fi teew yëpp du ma dugg ci lim ak a tudd ndax waxtu wi dafa daf ñoo jatt lool. yàlla dogal na it bi ma bi ma ñëwee léegi ñu jox ma benn document bu am solo mi ngi nii boo xam ne dafa aju ci thème bi muy Cheikhul Kabir Cheikhul Khadim yaa ni wa tawhid doomi sëriñ yu ñuy wax sëriñ Chouaïb bu jenn jeng def ko léegi bi ma ko xoolee laay wax ma ne xam naa bu ma ko teeloon a gis euh, gëstu bi ma doon def daanaka damay jël rek document bi jéem a xool lu ma ciy def euh, comme comme xulaasa maanaam résumé ma ma ma def ko sama conférence waaye euh, ndax bi ma xoolee daanaka li ma jot bind lépp lu ci ëpp gis naa ko ci biir document bi macha allah ki ko defit di ndaw loo xam ne ku mat a jébaane la wax dëgg yàlla ndax euh, jàng na ba xam li mu war a xam ci diggante alquran ak xam-xam génn dem bitim réew jàngi bi mu bi ñu waree def thème bi thème yi passé xam ngeen ne defoon nañu sëñ tubaab alquran sëñ tubaab sunna yu bare bari sëñ tubaab xam-xam defe naa moo mujjoon daaw euh, ñu ne ko way juram ak ay kilifaam sant ko mu def gëstu ci sëñ tubaab tawxiid mu def ci gëstu bu am solo mi ngi nii ba man euh, jot naa ko xool kilifa yu baax yi fi nekk sut ma fuuf àlluwa bu ñu ko xoolee danañ xam ne gëstu bu tegu ci man manhajiya la bu ñu teg ci manhajiya boo xam ne dañ ko wutal maanaam plan bu leer indi muqaddima indi ay anasir def taxliil bu leer mawduwaay yi manhaji yi soog a euh, wax li bëgg a wax lépp def xaatimaam loolu yaakaar naa ku liir document bi da nga ci am lu leer kon euh, sëriñ Chouaïbou bu moomu ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla def ko mag te barkeel xam-xamam te baril ay kemam sëriñ Tuubaa ak tawxiid nag bokk yi ba lañ cee junj dara dañuy njëkk xam xamle rek ne tawxiid xam-xam xam la waaye xam-xam bi gën a tedd ci xam-xam yi ci xam-xami diine yi am jariñ mooy xam-xamu tawxiid ndax li mu lëkkalool moo tax ndax xam-xam bu ne la muy xamle ca la soloom di dellu ca la solos xam-xam bay dellu xam-xamu tawxiid mi ngi jëm ci xamle borom bi subhaanahu wa taala ak xamle nu ñu ko war a jàppe ak nu ñu ko war a wéetale ak nu ñu ko war a jàmmoo moo tax boroom xam-xam yu ëpp yu bari sax laay wax ba ci Cheikhul Xadim moom gis na ne xam-xamu tawxiid moo gën ci xam-xam yi ñuy jàngale yëpp ci wàllu diine moo ci war a jiitu itam ndax wax naa ko léegi daf ñuy jàngal nu ñuy gëme yàlla nu ñuy gëme malaayka yi nu ñuy gëme téere yi nu ñuy gëme yonent yi nu ñuy gëme bis penc nu ñuy gëmee dogal muy arkaanul iman as-sitt gëm yàlla am na juróom benn ponk yoo xam ne mooy yooyu ma tudd te tawxiid foofu la jëm loolu lay jàngale moo tax sëriñ bi gis ne diine te loolu sax dëgg la gis-gise ma waaye gis-gisu aqida ahlu na ñépp lañ ndax dañoo sukkandiku ci xadis bu siiw bu xadisu jibril bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee jàngalee lislaam te mu jaare ci làmmiñu sayyidina jibril xadis boobu daf ñoo xaajal diine ñetti xaaj al iman wal islaam wal ixsaan mooy li Sëñ Tuubaa di wax ne na ngeen yeewu yéen ndaw ñi surtout bi muy wax ak ñoom ci tasawudu subbaana tasawudu sixaar yu mel noonu na ngeen yeewu ci ne na ngeen xam ne maanaa diine yàlla ji ay xaajam ñett la ñaareel bi mooy kon ni mu na Sëriñ Tuubaa dundalee xam-xamu tawxiid boobu nag ci taalif ak jàngale loolu mënees na koo tënk xëy na ci lu gàtt rek tawxiid bu ñu ko waxee ñaari xeet la ci dégginu sëriñ bi ñaari xeet ci tawxiid moo am donte nag euh, mën naa ëpp ñaar ndax bu ñu bu ñu duggee ci mustalaxu euh, ahlil aqida xam nañ ne tawxiid mën naa nekk ñetti xaaj mën na nekk tawxiid rububi tawxiid uluhi tawxiid euh, boo xam ne tawxiidu sifaat la boobu ku xool maanaam document bi ma doon junju da nga ci gis lu leer lu gën a yaatu du ma ci sori waaye ci dégginu sëriñ bi dafa gis ne tawxiid amaat mënees na koo séddale ñaari xaaj ak tawxid taarufi tawxid boo xam ne dafa jëm ci ilmul kalaam mooy théorie bi maanaam nga xam ne dalay dalay wax rek di indi ay lay indi meloy suñ borom yi bu dee gëm yàlla nuñ koy gëmee yàlla am na ñaar fukki melo yoo xam ne dafa war ci àqam jullit bu ne war nga koo xam ndax dañ koy laaj ci bàmmeel bàmmeel liñ ciy laaj weesuwul tawxid xasaayit yi ngeen gis sëriñ bi wax ne tontul malaayika yi la ci bàmmeel lu mel ne ci misaal min al lawxil mahfuz soo ko jàngee ba mu jeex loo cay fekk sifaatullahi al-ulya kese nga cay gis min nii liman lahu al-wujudu wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al-qidam noonu la ko toppee ba fukki ba ñaar fukki melo yu mat muy nafsiye yeeg maani yeeg ak maanawi yeeg yooyu mu jàngale ci Mawahibul Xudus kon loolu day wane ne xasida gi jàng na nga ko jàng mokkal ko doo lay xasida ji ak barkeb ki ko defar te def ko ci ndigal te yemul ak liñ def ci du dul ndigal man na lu ne comme jaawartu ni mu waxee ne dana wuutu tontu ci bàmmeel waaye nag nga bàyyi xelit ne tawxid boobu mu ci jàngale dafa laa bëgg won ne fexeel ba góor góorgóorlu pratiquer tawxid boobu dund tawxid boobu ba bis boo demee ci bàmmeel su la malaayika yi ne man rabbuka nga ne ko rabbillah wax a wax tontu tontu lu jub loo xam ne dana jaar yoon ba mën a am jàmm waaye man rabbuka nga naan ah maa ana bi bi bi xawma la maanaam laa adri maa talawtu wala daraytu loolu dara jël ko ci àddina jànguma xawuma te loolu day am moo tax sëñ Tuubaa nag ci jàngale tawxiid boobu nga xam ne mooy ñaari xeeti muy tawxiid kalaam yi yi mooy mooy bi nga xam ne def des koy dund des koy melowoo du doon du doon lu ñuy wax rek yee ay lay lay doon moo tax mooy bul xudduus ak xaaj bi njëkk ci tasawudu sixaar ak xaaj bi njëkk ci ci uh, tasawudu subaan ci taw kalaam yi boobu la jëm mooy bi nga xam ne dalay dalay wax yàlla mooy kan ñaata melo la am nu ñu koy layale ba nga mën koo gëm lu mel ne masaalikul jinaan ñëw taarrufi boo xam ne moom day day won nit ki ay bi boppam yi ne ci xol won ko ni muy manifesté woo ba ma gis ko wëlbatiku won ko it ni muy fexe ba mu saafarawu loolu moo tax mu teel cee bind lool ci tawxiid boobu ci ñaari tawxiid yëpp teel la ci bind ndax am na ci boo xam ne mooy Abdul Qudus bi bi mu koy bi mu koy woy ci yëpp njëkk a woy la bokk ci nekkuk woy juram sëñ Mbàkke Moor Anta booba ñaar fukki at yi day soog a teg rek mu jël al muqaddamatu bu imaam Sanusi wala ummul barahin ñaar tur yëpp la wooy ko muy aqida ashariya boo xam ne ci tawxiid gisuñu bu ko gën a matale donte gàtt na bu gàtt la waaye bu matale la Sëriñ Tuubaa jël ko gis ne ndaw ñi soxla nañ ko pour mën mën a xam bi biñ soxla mu jël ko woy ci Mawaahibul Quddus muy téere bu jafe bu naqaree dégg waaye am solo gi tax na sëriñ Mor Anta Sali jël na téere boobu jàngal ko sëriñ Afiya Mbàkke rakk sëriñ bi ak sëriñ Cheikh Thioro rakk sëriñ ngir lan ngir téere bi ak barke bi ci nekk dafa mujj teg fële ndey ja muy ummul baraahin bi di jàngale mawahibul quddus loolu ba ne ci ci ci raw na di ma nga ci euh, beneen bi ci des muy tawxiid ak euh, taarufi bi moom teel na ci bind moom itam dundal na ci xam-xam ci bi mu amee fanweeri at la ci bind muy masaalikul jinaan masaalikul jinaan suñu tubaab ko bind ci bi mu tollee ci fanweeri at bu njëkk dañaa wax naan ci fukki at ak juróom-ñett waaye li gën a wér ci gëstu yi te mooy li ne ci irwaak minan bi mu koy woy boobu mi ngi mbàkke ba wala ko woye dañuy dañ lay woon fa mu ko doon woy ak yëpp booba ci fanweeri atam yu teg benn jëm ñaar ci la toll ndax bi sëñ mbàkke moo anta sali yi nelaw ci fanweeri at lay toll sëñ tubaa soriwut 1270 sëñ moom sëñ mi mi ngi fi jóge ay 1300 kon loolu ci fanweeri la te misaal yi mi ngi ko woy diggante xëy na basasin jëm jëm de nga jasasin muy 1302 euh, euh, wala 1303 ci hijriya loolu ci mbàkke ba wala kon kon ci fanweeri atam la ko woy moom lay junj naan wa baadu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fa saara tawxidayni fa awalun takallumun wa thaani taarufun laa tunkiran bayaani wa daaka lil umumi yunsabu kama kaana ila alxusuusi daa qad intama wa saaxibu alumumi maa taqaddama kalaamuna fihi kitaaban nudima wa huwa alladi nasarahu sanuusi sibtu rasuli rabbina alqudusi loolu mooy li ma waxoon léegi ci wolof rek mooy mawaayibul quddus bi ak masaalikul jinaan bi ama allasi xawal xusuusa fa huwa ma nati bii aydan huna muntasima kon way na ci ñaari ñaari fan ci ci ci ñaari ñaari tawhid yooyu yëpp waaye pour gaaw gaawal rek lu dul lu dul ñaari téere yooyu itam gis nañ ne liggéeyaat na yeneen téere ci tawhid ci pas-pasu tawhid ci pas-pasu ah, aqida ashariya boobu téere bu am solo muy téere bu ñuy wax faydul ganiyil mugni boobu ñu bari xamuñu ko donte ay ay ndaw yu mel ne Serigne Souhaïbou bu mi liggéey nañ ci liggéey bu am solo bu yàggut naa ngi tudd ku ci def am solo saraa ndax ndaw ñi wane leen dana ci baax ñu xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi jéem a góorgóorlu di roy mag ñi di teg te seen tànk fa fa mag ñu baax ngi tegoon seen tànk ci dundal xam-xam faydul xaniyil mux nii sëñ Tuubaa da cee woy muqaddamatu risalati ibni abi zeydin al xayrawaani njëlbeenu téere bi nga xam ne pas-pasu ashari yi boobu la ci jàngale nu ñuy gëmee yàlla nu ñuy fexe ba ndaw ñi am pas-pas boobu and ci sax yu yeneen i qadaaya aqdiya yoo xam ne nit ñi soxla nañ ko lool ci jamono jii ndax léegi ku ne xam ne ne takfir yu ni bari nañ ñiy wax nit ñi ay yéefar lañ te ñu koy wax di ay jullit comme ñoom di jublu penk Sëñ Tuubaa leeral na ci loolu ci téere bi niitoo ko ci risaala tontu na ci ñi nga xam ne dañuy wax ndax nit ki buñ ko gisee muy julli di jublu penku donte mi ngi jëfandikoo kabiira mi ngi def bakkaar bu mag ndax dañ koy takk takfiir ne kii yëfër la wala ndax nit ki bu defee jëf joo xam ne jëfi jëf jëf ju ñaaw la te teewul mi ngi bo boolee boppam ci jullit ñi mu faatu dañ koy tabbal sawara yooyu yëpp sëñ bi leeral na ci leeral yu am solo ci téere boobu téere boobu ku ñuy wax sëñ Seexuna Mbàkke moom sëñ Murtalaam sëñ Fàllu saraana ko bu yàggul tuddee ko al nii fii maani faydul ghaniyil mughni andi ci yu am solo yoo xam ne moom itam ku ci delluwaat dañ ci gis yu am solo téere boobu sëriñ bi da ko woy kon ngir xam-xamu tawxid wala xam-xamu aqida aqida xam nga dafa yaatu moom tawxid dañ ci biir ak yeneen ak yeneen waaye sëriñ bi itam dafa woote lu bokkul ak taalif yooyu ak mbind yooyu dafa wëlbatiku nag wane moom bi muy taxawal yoonu murit di woote jëm ci yàlla ci lan la doon woote lan moo nekkoon jumtukaay bi mu doon jëfandikoo di ci di ci jaarale taalibe yi ku njëkk a topp di leen jëmee ci yàlla loolu tawxiid la wax ne moom la doon jëfandikoo ndax nee na bokk na ci li ma yàlla terale bi may feeñ jamono damaa feeñ ci biir société boo xam ne jamono ji ma ciy feeñ ak doo defee bari tubaab bi nekk fi di ay yéefar ay saay-saay ne fi donte ñu baax ngi fi ñu bari macha allah waaye yàlla terale ma man ma wéetal ko wéetal bu kawe tawxiid sëñ Tuubaa nag buñ ko limaaleeg suñ tawxiid yi ñun tawxiid taw ay niveau la tawxiidul al abraar bokkul ak tawxiidul muqarrabin cheikhul xadim ak mag ak mag ñu baax ñu fi nekkoon seen tawxiid ci tawxiidul muqarrabin yi la bokk ci gën a kawe la bokk te loolu yaakaar naa ne buñ ko waxtaanee woon dana gën a leer moo tax mu ne ad'u ila al ilahi bit tawxidi wa ma raaytu anhu wala minhu min maxidi nee na damay woote jëme ci yàlla di ko jaare ci tawxid te du ma du ma gis lenn benn yoon bu may jeng gon ginnaaw tawxid di woota jëm ci yàlla wax ne moom laa yeesal itam nag ak ay bokkam ay bokkam mooy fiq ak tasawuf ujaddidu tawxida wal furu'a alfuraa huna alfiqhu maa tasawufin hawa burua nee na ñett yooyu laay yeesal kon sëñ Tuubaa mujaddid la waaye ci lu mu doon yeesal tawxiid ak fiq ak tasawuf moo tax yoonu murit loolu rek la liimaan la bi tawxiid lislaam la bil fiq lixsaan la bi tasawuf loolu la tontu woon gouverneur général mu ko laaj ne ko maa ussu at tariqa lan mooy fondation sa yoon wii ngay sos nga nga nga yeesal yow Ahmadou Bamba mu ne ko ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawuf mu ne ko yoon wi cosaanam mooy gëm yàlla ci tawxid jaamu yàlla ci fiq dund lixsaan ci tasawuf mu ne ko ñan ñooy murid yi mu ne ko murid yi ñooy al muminuun al muslimuun al muxsinuun kon sëñ Tuubaa ku xatal yaa xatal mais moom xatalu de ku yaatal la nee na murid yi ñooy ñi gëm yàlla fu ñu mën a ne ñiy jaamu yàlla tey sellal fu ñu mën a nekk ñiy dund tasawuf fuñ mën a nekk ñooñ ñooy murid yi daal ne suñu borom ne ko nag bis ni ki tey nome naa ko def ko muy al abdul xadim sammaytani qatan bi abdika al xadim yaa man yaquudu lii busharatin tadum yow yow yàlla tuddee nga ma qatan ci lu wér la amul sikki sàkk ku koy sikki sàkk man sikki sàkk uma ko leer na ma ne yaa ma tuddee al abdul xadim jaamu bu yàlla bii liggéeyal jaamu bu yàlla bu mag bi tax mu naan fa awha ila abdihi maa awha tax mu naan subhaana alladi asra bi abdihi layla muy sallallahu alayhi wa sallam mi tànnoon maqaamam ubudiyya jaamu nekk jaamu bu yàlla kese loolee dem na ba wane ne ku ma ko nangul wala ku ma ko seedeelu itam malaayika yi ñoom rawatina ñaari malaayika yi ñoom seedeel nañ ma ko inni ya abdullahi jalla wa xadim lil mustafa allasi ictilaauhu yaduum yashhadu lii bidaa raqibun wa atid fii kulli yawmin inda dil arshil majid nee na bés bu set raqib ak atid seedeel ma fa yàlla ne man jaamu bi yàlla la buy liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ba ci noon yi sax noon yi sax ñu seqoon ak moom jamono te teg ko lu ne nattu tawxiidam te mu ne booba ñoom jaxasoog ñoom day rikki tawxiid waaye ndekete ndekete yàlla defal na ma man jaxasoog ñoom ci la sama tawxiid di yokke moo tax bi muy dem ci géej gi mu ne fu ab sëriñ di àgg ci maqaamam liimaan ak lislaam ak lisaan àggoon naa fa waaye li ma manqué woon te mënu ma ko woon a ñàkk te dem ci géej gi rek ma ko mën a may jaxasoog samay noon mooy matug liimaan ak matug lislaam ak matug lixsaan muy al maarifa wal yaqiin wal wusul nee na yooyu ci ci géej gi laa ko ame moo tax noonu yi dem ba ba reconnaître ne jaamu bi yàlla dong la boo xam ne yàlla séqu ko kenn ni mu wéetale yàlla boolewu ko kenn noonu la ko yàlla wée defe muy koo xam ne moom itam séqu ko kenn mu ne alimatil aadaau inda al mughriqaat bi annani abdu nii lil xaariqaat noonu yëpp xam nañ ne man sëriñ tubaa te ñu ngi ko xamee fa géej ga fa géej gee labale fa lañ xamee ne man sëriñ tubaa jaamu bi yàlla laa mi nga xam ne mooy ay xarbaax wasalaatu wasalaamu ala xabibihi sayidina wa maulana muhammadin amin wa alihi wa sahbihi wa xulafaihi tayibina tahirin daje yu mel nii daje diine la te inna diina inda islaam ba tax na ma jappane kenn ci njabootu diine bu yëkkatee kaddu war na mën a yóbbaale ña ca des waaye daje olof rekk na ko Cheikh Al Hadji waxe woon rek ne mbokk olof ku ànd ak ñoom sa xol du sedd ñu ne ko Maodo lu tax mu ne demuñu bëgguñu ku dem ku ñu jaxase rek la ñuy wut waaye alhamdulilah yaakaar naa ne jotaay bii mag ñee ko sabab te inna al ibada lillahi ida aradu arada allah suñu borom ne am na ci sama gaañ yi man yàlla ay nit lañu am ndey am baay waaye yemuñoo ko yéen nag man yàlla maa leen tànnal sama bopp ba lu ñu namm rek ma ànd ceeg ñoom suñu maam yu baax yooyu xaadimal Moustapha mbokkam ba Cheikh seydi Hadji Malick ak ñeneen bari na kon ñooñu tey seeni njaboot rek a fi daje di dundal la nga xam ne moom la yàlla jël teg ko ci loxo Seyduna Muhammad yaa ayyuha rusul balligh maa unzila ilayk waaye wa in lam tafxal fa ma balaxta risa risaala ba la la alquran alkarim yàlla teg ko ci loxo sayduna muhammad mi nga xam ne moom la suñu maam ju baax ji jël boppam dippee ko boppam mu cheikhul xadim yàlla nañ ko yàlla fayal fa tabaarakallaahu waaye yemul nag moom ci ni ñuy def rek wax rek ñu ne ëskay boo paree jëf dara kon kooku taxul ñuy wax te damay wax ne la mag ña nekkoon bu dul dëgg ci yàlla dara dootul dëgg ci yàlla xanaa du ñun jamono bii li ñu nekk ñun ndaw ñi mag ña ku yeboo bàyyi leen xel xam ne ñoom rek la bu dul woon ñoom dara du fi baax danaa koy wax xale yi ma ne leen man jotaay bu ma dem mag ña laay waxee ne keneen la mu bind sama yoon nekku ca waaye suñu mag ñu baax yi liñ ñu fi indil gisuma leneen lu ko ëpp doole gisuma leneen loo xam ne moo ko gën ndax dañuy fekk ahsan fekk dugal ci xasan bien baax na waaye lu gën bien du très bien mm-hmm. mag ñi nag très bien lañu am bari na jamono bii ñu jóg ngir lan diingat li fi mag ñi bàyyi moo tax góor ga tontu leen Cheikh Al Hadj Abdou bañ naan tarixa murit ak tiijaan li ñuy def yépp dajale nit ñi yépp bi daala mu ne leen kiy wax naan Tuuba ak Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yéen ñi xam na ngeen leen wax nañu noppi mooy la gën seen dawlu jiitu na tey loo bañ bañ du fi jug waxal ba xottiku yaa malxoonu yaa xëttaxal <laughs> fexe na ba sos daara ba pare ñu jàngale ba boo duggee ci jàkka ji xam lan ngay déyoog sa borom kon fa tabaarakallaahu oustaz yow tamit sëñ Sidi Sidi Dieng ñu ngi koy ñaanal ma di ko sant bu baax ndax lii ñun am nañ ci responsable suñ ñun ci daara la ñu xam daara la ñu yaroo jànguñu tubaab suñu maam yi fii la ñu yóbbu ci daara ji kon ku ñu wuutu ci lii di ko def amuñ sa pay sëñ Sidi yal na yàlla fay la wax nga li nga liggéey ci diine yàlla moo yor sa pay waaye ak ka nga xam ne nag ndax am na loo xam ne tàgge bu nekk am na jàppal diw tey jàppal diw nag sëriñ Mbàkke Njeng la yàlla yàlla taxaw la sëriñ bi ñu ngi jéggalu bu baax ñu jenn te di la ñaanal yàlla bu ñu fàtte ci ñaan bu ñu fàtte sëriñ Baara tamit sëriñ Muntaga bu sëriñ Baara fa tabaarakallaahu moom sama soppe la fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñoo bokk benn wàccuwaay ñoo bokk lépp fu ñu daje rek ñooy bokkandoo wàccuwaay yal na yàlla saxal fi jàmm ñaanal soxna yi nag ñu jara ñaanal lañ ndax xadijatun xat sakkanat bil xal bi zakilatan Cheikh Alhaaji Malick moo ko wax kooku jigéen ñee ko moom yàlla yàlla fayal ñu leen wasalaamu aleykum wa rahmatullah Sidi Ahmed lii la ma yóbbante woon ne naa ko jotal ci mbokk yi ngeen baal ñu xàq wa salaamaaleykum wa rahmatullah jazakallahu xeyran wa kufita sharran yéen mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te leen di siyaare di leen jot ay kàddu yoo xam ni yu bàyyi ko ci kilifa yu baax yi la eh, lim bi ñu limoon ci kilifa yi dañ koy gàttal ndax ñi doon lim yëpp jot tudd nañ turu kenn ku nekk kon daal li ci sun taxawaay mooy siyaar suñ kilifa yu baax yi ñi bàyyi ko Touba ñi bàyyi ko Tiwaawan di suñuy kilifa di leen jot leen nuyoo bi nga xam ne dafa bàyyi ko ci suñu kilifa Cheikh Abdou Latif Diène di xalifatu Cheikh Missa Diène ak mbooleem usra bi yëpp nuyoo bi nag gannaaw bi nuyoo suñu kilifa yu baax yi muy Touba ak Tiwaawan ak fa keneen fi kilifa bàyyi ko ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare nuyoo bi nag ñu ngi ko jëkke ci famille sëñ Mor Mandaw Dieng ñoom ñi nga xam ne dañoo daje woon woote seen bis di fàttali ko seen maam di sunu maam ay jaar-jaaram ay nekk nekkuwaayam ci diine ay tolluwaayam ci ragal suñu borom tabaaraka wa taala ak tolluwaayam ci topp yonante bi alayhi salaatu wa salaam ba meññ seeni maam meññ sunuy maam ba egsi ci yéen ñu di ko doxal sëriñ mi jiitu jiite liggéey bi ci di ko ndigalal baayam ànd ko ay rakam di ko taxawe di ko taxawe ba yàlla at mu sotti gis ngeen kër gi nii gis ngeen jumaay ji nii gis ngeen jànguwaay bi nii kon leen ah sëriñ Sidi Dieng moom itam di doom ci sëriñ mi mu jiital ko ci liggéey bi moo ko sëñ Ibrahima mii mu taxawu ko ku ne xam ne jàngale ci jamono bi itte yi ni mu baree ci gox yi taqanti ko mu muñ lépp jaayante ànd ak waajuram wi di ko jàppal ci liggéey bi su tukkee ak su fi nekkee nam doon doxee du ci yokk dara gis ngeen lim bi nga xam ne mokkal nañ alquranul karim ci bi biñ ko tàmbalee ci lu toll juróom-benn at gis ngeen kamil yi bind gis ngeen ren jii ñi mokkal man mii sama doom ci la bokk mu xool ko rek dana bég dana kontaan dégg ngeen suñu waajur wu baax wi di sëñ Lamtoora li mu wax ci Seex di Muxtaar léegi ci teraanga yu bari yu daan jëme foofa am amwaaluhum wa anfusuhum alxuraan a ko wax alal ak bakkan ñoom ñaar sorewuñu kuy fab sa alal di ko yóbbu ci barab ngir yàlla xemeem nga ñooña wuulu nga ñooña sopp nga ñooña kon li ñu suñ kilifa yi digal rek mooy ànd goo xam ne ànd gu dëggu lay doon goo xam ne gu gu gu gu ànd ak tawfeex lay doon gu gu ragal lu yàlla lay doon gu waxante dëgg lay doon loolu bu ñu ko defee rek insha Allah bi jëf ji dana mat duñu guddal wax yi nag waaye li ñuy delluwaat daal di ko takraar muy sëriñ Mbàkke yaag sa xeet wii nga xam ni da ngeen a tax woon ñëw ñu dalal daal leen ngeen nekk fi dégg ngeen li wax ni sëriñ Bada léegi dana ko def di bayal euh, dëkk bi ab euh, daara ji ab tool loolu positif la kooku ànd naa yow ci positif ànd naa yow ci yéene ànd naa yow ci mbokkoo ànd naa yow ci doomu bàyyoo noonu nag day mel ni sax du ci met ci yéen ndax taxoo gu yàgg ak xamante gu yàgg ci bind liifar bi léegi sama turandoo magam wala rakkam soxna Fatou suñu taaw bàyyi lañ ko tudde kon sa dara génnul kër gi sa léppit xam nañ ci lislaam rek nga ko jëme yàgg sa rakk yi ak sa mag ñi ñu ngi leen di ñaanal li ngeen ci yéene ngeen am ko daara nag liñ ci waxoon léegi rek waxan ko daaw jéeg yan la bu diis ndax nit dafa naqaree saytu ndax doomu aadama bu xiifee di ko jox mu lekk su maree di ko jox mu naan bu tawatee di nga ko faj bu bu réeree di ko di ko seeti yooyu yëpp yéen yéen ko gàddu yéen ay dundal yéen ay xamal yéen ay faj bu réeree yéen ay wëri kon dafa mel ni yéen a ko gàddu en charge bépp jullit bi bëgg lu baax nag am na ci aw sas comme na ni ko sëriñ si di waxee léegi waaye nag li li li suñ fulla ci wax ji daal mooy ñaanal leen yéen ci seen bopp ngeen di ko gën a àttan ci barkeb alxuraanu karim barkeb suñ kilifa yu baax yi barkeb xaadimu rasul ndax ba ngeen koy tàmbali tegu xeer wi mel na ne kartan yi ëgguloon foofa waaye jëfe ndigalal kilifa yi ba ngeen ci sóoboo daal dañu xam ne lu yàlla nangu la suñu borom daal na koy jàpp dal jàpp dal boo xam ne amu leen ci góom yel yàlla bu leen ko ci am kon nag moo tax kuy jàngale alxuraan na nga xam ni yaa ngi taxaw ci ponk boo xam ni bu am maanaa la bu am solo la bu bu am yaakaar la boo xam ni li ci li ci li ci sunu mag ñu baax ñu wax sëriñ Touba maam Alhaji Malick wa xayrihim wa xayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom ñëpp bind nañ ci bind yoo xam ne bind yu leer nañ la yoo xam ne lislaam sax mënta sax continuer te ndaw ñi duñu continuer di watta alxuraan muy ne ci seeni dënn ñu koy duggalante di ko jokkalante kon nag ñoo ngi lay sant yaa ngi ko siqal ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal ci turu suñ kilifa ga di Cheikh Abdou Latif ak kilifa yi fa nekk yépp di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàgg ci ko suuf te wér lool sëñ Ababacar si xalifa maam ma alhaaji Malick yàgg fi moom itam te lool te am jàmm tey ba yan yi nga xam ne yenoon nañ ko ci lislaam ñu agale ko fa seen yéene jublu muy agale ko agale bu mat te dara bañ caa damm bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jégalu ñëpp ñoo ngi tuubal ñëpp gouvernement bi nga xam ni ab gouvernement moo yilifum réew moo yilif kilifa diine moo yilif kilifa baadoola moo yilif ñëpp loolu la yàlla def teg ko ci borom réew mi ñu ngi koy fàttali ci wartif yi nga xam ne war na ko fi dañ gis ni ne ah, am na lu ñu ci nëral yàlla àggale loola leneen la ca des mooy may leen yoon woo xam ne dana jàppaloo ak yoon wa suñ kilifa yu baax yi ñu fee ñàkk ñëw bu ñu fiy ñëw fekk mu nekk ñëw bu yomb goo xam ni du ànd ak coona loolu nag boroom réew mi ak ñi yore secteur yooya ñu ngi leen koy sàkku di ko ñaan suñu borom di ko jaarale ci ñoom ñu yor mbiri àdduna yi ñu dimbali ci waa dëkk bi ba li ñu fi war a am lépp ñu am ko ci dëkk ndax dafa dëkk bu rëy waaye am na ay ay firnde yu bari yu fi nekk yoo xam ne jar na ndax alxuraan karim mbooloo mi ci nekk di juróom-ñetti fukki nit di juróom-benn bu ñu ko tàmbalee léegi fanweeri ko mokkal ci bind alxuraan loolu benn daara bu nekk biir mën jar na état bi yóbbu fa courant yóbbu fa ndox yóbbu fa téléphone ndax xawee ko gone yooyu ndax dimbali leen ko ndax dimbali ko jéem a daara ji loolu daal di ko def ci dëkk bii kat dëkk la bu ñu mënatu la bàyyi dëkk la boo xam ne ay ñi ko sosoon ñëpp ay jàmm ak wala takilni li waram jamial muslimina bara membre du gouvernement bi ku ne la nga ca méngoo tam war ci dëkk bi waram jamial muy Touba muy Tiwaawan muy yeneen dëkk yi muy Madina gisat ñu ku nekk danga yor a na lool surtout bu waa dëkk bii ñii fi dëkk ak Serigne Mbacke ñoom ñii moo tax ñu ñëw fi waaye